Euh, jërë ngeen jëf mbokk internet yi daleen ak jàmm ci seen récap du jour ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi euh, mouvement bi la di Y'en a marre yéen ci affaire bi nga xamante ne ni moom la ñu tudd benn ci seen i membre di euh, kilifa ñu daal di nag xam le ni daal képp ku jug rek te bokk ci mouvement ba dem rek di jàppale ki nga xamante ne moom moo di kilifa ca la ñu ko jiiñ te dëppawul ak ay activités officielles yoo xamante ne ni ñoom amal nañu ko jàppee nañ loolu daal comme acte boo xamante ne ni c'est strictement Euh, personnel te duñu ko aw euh, laale ak seenu euh, mouvement ba tey nag ci wàllug kilifa dinañ itam indi réaction yi nga xamante ni nii ñi di Mame Gor Diazaka ak professeur Cheikh Oumar Diagne wax nañu ci seeni xalaat dina ñëw itam ci scandale bi nga xamante ne nii moom moo ñeel fi nga xamante ne moom moo di ministère de la santé ak révélation yi nga xamante ne nii docteur Babacar Niang def na ko daal rek wax ni daal ab njuuj njaaj bu jóge ci ci kaw ministère de la santé la rek euh, saytu mbokk internet pàcc yi gën a fës ñu ngi noonu ñu ñëw ak yéen nag ci jukki euh, xibaar yi alors ba tey ñeenteelu fan ci weeru euh, août dinañu tàmbale xibaar yi ak mbir yi ki nga xamante ne moom moo di kilifa bu mouvement Y'en a marre mu mel ni nag mouvement bile yey na yàbbi ci kaawam boobule ginnaaw bi nga xamante ni daal saytu na ñaar ci ay vidéo yoo xamante ne fësal nañu ko ci réseaux sociaux yi daal di nag enfoncé wala gën a dugal nga xamante ne moom moo di kilifa ci mbiri trafic de visa bi nga xamante ni daal moom la ñu ko jiina fan yëpp ñu uh, weesu uh, mouvement bi la nag di Y'en a la ñu xamle uh, moom moo di rek seen benn membre bu jugee rek daal di dox ay jéego daal di koy jëmalee ci ki nga xamante ne moom moo di kilifa nañu jàpp nag ne jéego yooyu c'est strictement personnel te sax it nag mënuñu ko laale ak mouvement boobule akit it nag seen activité officielle ci noonu rek ñoom ñu fàttali rek ne seen mouvement di Y'en a marre daal eh, jegewul benn yoon ci eh, prétendu accusation yi nga xamante ne moom la ñu teg ci ndodd ki nga xamante ne ni eh, moom moo di kilifa fi mbir mi toll nag jamono ji mooy rek benn procédure judiciaire entamé wuñ ko contre ki nga xamante ne ni moom moo di kilifa wala sax nag ñu koy condamné waaye moom ci wàllu boppam nag jël na ndogal daal di rek arrêté bépp activité boo xamante ne ni mu ngi ko doon def ci mouvement Y'en a marre tey xaar nag fa la mbir mi di mujj ba tey nag lépp ki nga nga xamante ne moom moo di kilifa ak mbiri trafic de visa bi nga xamante ne moom la ñu ki nga xamante ne nag moom moo di Cheikh Omar Diagne la mu xamle rek eh, moom moo di eh, bu fekkee ne kilifa dafa def li nga xamante ne moom moo di ab erreur na am grandeur rek daal di eh, di wax ne moom moo juum te sax nag d'après vidéo yi nga xamante ne moom la ñu fësal ko ci gis la mu jàpp moom moo maanaam moom moo def te sax nag li ko gën empiré mooy vidéo bi nga xamante ne nii génn na moom kilifa di ci def ay explication te tax na sax nag euh, waxul dëgg askanuk euh, Sénégal gi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko euh, doon seetaan moom professeur Cheikh Omar Diagne jàpp na ni itam mënut a formel ci situation bi waaye daal d'après vidéo yu mu jot gis ki nga xamante ne moom moo di kilifa dafa juum te sax nag am na déception bu baax a baax ci moom ndax it nag nekk na nit koo xamante ni daal respecté na ki nga xam ne moom moo di kilifa daañu indi itam am réaction ki nga xamante ne moom moo di Mame Gora Diazaka ci affaire boobule moom nag euh, daanaka ay conseil rek la jox ki nga xamante ne moom moo di kilifa daal di koy wax rek ne ku ñëpp di xool daal euh, fi ngay jaar dafa war a leer beneen ci ay digle bi nga xamante ne nii di Mame Gora jox na ko kilifa mooy rek nag mu yóbbu ca fa mbaxane doone benn ki nga xamante ne nii daal euh, moom moo ko filmer te yëgu ko surtout nag bu ñu ko jiiñee rek ci wàllu trafic de visa mu mën a nag yàqal artist yu bëri donc rek war na mën a dox dox euh, jéego boobu ngir seetal euh, boppam ca kanamu yoon bokk na itam ci lañu ñu jukki ci xibaar yi euh, plainte bi nga xamante ni kuréel guñ dénk wàllu ko wér gu yaram fi ci ma Sénégal jébbal na ko ki nga xamante ne moom moo di docteur Babacar Niang nekk médecin chef urgentiste bu suma assistance mu mel ni rek ni ki ëllëg daal ci boor yi dix la le docteur Babacar Niang wala dem wuyu ci brigade de recherche bu Faidherbe coow li nag mu ngi tàmbali ginnaaw bi nga xamante ne ni docteur Babacar Niang dem na ci benn émission euh, plateau daal di fay def nag ab révélation yu yéeme sur un supposé scandale boo xamante ni daal dafa laale ak euh, kuréel bu ñu dénk wàllug wérgu yaram te ñeel ay euh, vente de matériel médical yi nga xamante ne nii centre de traitement des épidémies la ñu ko waroon na jagleel mu doon nag ab accusation boo xamante ne nii daal ci ay jëmi jamono ki li di Madiambal Diagne nekk ab taskati xibaar bu jege loolu nguur gi defoon na ko ci benn ci benn ci ay noonu itam réaction wu première ki nga xamante ne moom moo di docteur Babacar moom moo di rek euh, ba ñu ko invité ci benn plateau euh, télévision ni ki euh, démb itam la rek indaale convocation bi nga xamante ne nii moom la ñu ko jébbal loolee nag taxul benn yoon mu dellu ginnaaw ca kàddu yi nga xamante ni daal moom la def maanaam rek doon ay accusation tey wax rek ne waxu démbam moom mooy waxu tayam te du ca dellu benn yoon ginnaaw ndax jàpp na ni moom moo am dëgg loole nag bokk ci benn ci ay révélation yi nga xamante ne nii euh, docteur euh, Niang def na ko mu doon nag lu yéeme euh, docteur Babacar Niang ba tey nag ca ay explication ca plateau ba mu indaale daal ay boîte médicament yoo xamante ne nii daal jàpp na ni waruta mën a circuler ci mbedd mi te sax nag ab benn waay moom moo ko ko jox ngir rek mu dénoncer li nga xamante ne nii daal moom moo xew ak vente de médicament dangereux bi nga xamante ni daal ñu ngi koy amal docteur Babacar Niang nag ginnaaw ba mu indee yooyee euh, médicament yooyu maanaam garab yàlla mu ca xam la rek moom moo di garab yooyu dañoo tere ñu koy euh, jaay ndax bañ ko xoolee ba ca biir daal la drogue la en quelque sorte acte boobu nag moom mu jàpp na rek euh, responsabilité ministère de la santé ci boppam la te garab boobu nekk drogue daanaka rek dañ koy jënd ci mbedd mi comme rek nañu jaaxee mburu ba tey nag ci affaire docteur Babacar Niang bu suma assistance ak plainte bi nga xamante ne ni moom la ko jébbal bokk Euh, ki nga xam ne moom moo ko jébbal plainte boobu daal di jëwri bi ñu dénk wàllug euh, wér gu yaram dafa waroon passer par l'ordre euh, des médecins ngir mën ko jébbal li nga xamante ne ni daal moom moo di plainte am boobule waaye ne bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante ne moom moo di docteur Boli Diop nekk président de l'ordre national des médecins du Sénégal affaire boobu nag ab affaire privé la ci noonu daal jàpp na ni rek l'ordre des médecins du Sénégal amul benn droit di impliqué wu euh, ci affaire euh, bu ni mel euh, moo tax nag ñu raxas ci seen loxo ba mu set wecc mu mel ni itam plainte boobule tey le docteur Babacar Niang waroon na dem defeeri ca convocation ba waaye nag ñu ngi xamal ne tegul tànk ca brigade de recherche bu FEDEB loolee daal yéenekaay bi di libération online daal xamale ci wàllu boobu yéenekaay bi de nag jàpp nañu ne fa mu jëlee xibaar ba daal moom moo di ca Zik FM ginnaaw bi nga xamante ne ni laaj nañ euh, docteur Babacar Diagne ci wàllu woowu mu ngi leen di xamal rek ne ci app feebar la jógee te mu ngi xaar nag app euh, deuxième contrôle loole sabab nag mu am app certificat médical bu vingt jours waaye nag terew ko benn yoon mu yebal ay avocat ca brigade de recherche ba euh, ngir rek ñu mën ko fa teewal ca convocation bi nga xamante ne ni daal moom la ko jébbal foofu daal mbir ma daal di toll Euh, jamono ji ñu ñëw nag ci beneen cas ñel euh, ab fraude euh, ci examen baccalauréat ak étudiant bile woon daal di nag solo ndubu jigéen ngir mën a rekk def yenn ci épreuve pour ki nga xamante ne ni moom moo di euh, copinam ginnaaw ba ñu ko euh, jàppee nag la mu xam xamle rek euh, mooy woon dafa agir rek par amour maanaam rek cofeel nga mu amoon ca coroom moom moo tax rek mu déguisé wu daal di dem nag toog place xale bu jigéen boobu ngir defal ko ab examen mu mel ni nag ñu mujjee leen teg ñoom ñaar ñëpp daal di leen nag placé sous mandat de dépôt ëllëg nag ci alxames bi la waaye boobu nag war a yoon ainsi ki nga xamante moom moo di coroom boobu ngir rek ñu mën a xam yan daan lañ la ñuy euh, teg euh, seen kaw dossier euh, bii nag daanaka wër na réseaux sociaux yi ba tax na nag ñu bëri nag jug nañ daal di xas ki nga xamante ne moom moo di Khadim Mboup mi nga xam ne moom mu porté woon volontaire ngir defal épreuve yi copinam ba tax na nag njabootu xale bu góor bile daal daal di jukk itam daal di ut ab avocat mu di maître Assane Dioma Ndiaye ngir rek ñu mën a défendre seen doom boobu ànd si nag ab ak ab njàq Akare ndax nag euh, lay seen tiitaange rek moom moo di rek mu am ab répercussion psychotraumatisme ci ñaari ndaw yile ndax it nag daanaka dañoo subir la ñu dippee ab lynchage médiatique depuis que rek affaire bi daal di tàmbali. mbokkente nag ci loolu jotoon na ruus ci xibaar yi bëccëg bi cant ngërëm ña leen ci ànd bi ngeen ànd ñun di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf.